ñàkku làmb ji gis ngeen ni mu ko impacté ñu ngi nii reporté ko et avec juste raison aussi parce que làmb neex na lool xaalis neex na lool mais bakkanu ni ñi moo ko importance euh, ni ñu ko reporté ni sax bokk na ci sensibilisation bi tax na ba ñëpp xam ni warno na ñàkku feebar bi war na fay jógee donc euh, ñuy ñaan yàlla rek feebar bi wàññeeku autorité yi comme l'a dit monsieur le gouverneur su wàññeekoo ñu évaluer xam ni affaire bi mi ngi wàññeeku comme le président Macky Sall jëkkoon a wax ni vivons avec le virus bi mu couvre-feu bi yàggee parce que nit ñi foog ñu liggéey te ñoom xam nañ loolu léegi nag euh, ndimbal na ci fekk loxol borom na nit ñëpp vacciné wu ñu ñaan yàlla mu wàññeeku ñoom ñu évaluer ñu xam ne affaire baa ngi wàññeeku ñu libéré promoteurs yi même su doon à huis clos partiel ñu def ko. ñaata laa ci. suñ doon mm-hmm. eh, ma dara man baka nit ñee ma gënal perte ma dara la perte et lamb ji lamb joo xam ne ñëwagul nga ni yooyu yaa ngi wuti affaire bi ak nga ni dama ngay évaluer loo perte perte nu dara bakkanu nit ñi moo nu gënal fukki yoon ak le contraire man dama soulagé wu. waaw Père ñoo ngi lay nuyu di la ziar. Hmm, di la ñaanal jàmm di ko ñaanal sa mbokk yëpp. tey ñu gis ne gouverneur am na nu am na ay kàddu yu hmm. bu fekkee ne mbër yëpp ak supporters yi ñu bari ñàkku nañ lamb ji dinañ ko mën a fexe mu am. Euh, waxul dafa ne su ñëpp ñàkkoo. man li ma wax léegi. waaw man xam naa ma ma nekkoon léegi li wax bu leen di transformer toujours waxu jàmm parce que benn virgule rek mën naa dafa ne suñu évaluer mu gis yëf yi wàññeeku te xam naa ne suñu évaluer normalement ak rythme bii ni ñi jël dana wàññeeku su wàññeekoo ñu libere nit ñi ñu tëgg ñun pare nañu pour tëgg mais à condition nag que état joxe feu ñoom ñu nga xam ni autorités sanitaires yi ñoo xam fan la affaire bi toll ñu wax ñu ñu tiit mais suñu bëgg-bëgg rek du tax ñu tëb di tëgg làmb comme ça ba nit ñi mën cee yokku di dee wala di fen ano ah non euh, yi est-ce man par exemple premier mois balaa xëy na ñàkku nanu de façon ténor bu ci ñàkkuwul man bërki démb Bombardier envoyé na ma benn vidéo muy ñàkku Balla Gaye Balla Gaye sama kër la ñàkkoo yaa quatre ba donc euh, nit ñaa ngi ñàkku kuy euh, et puis comparaison n'est pas diw ñàkku ak est-ce que diw ñàkku yow dem nga ñàkku rek ñàkk say waa kër ñàkk ko xam nga ne ko ñàkkul. waaw mais bu ñëwoon jëmbal bés également. non mais de façon l' essentiel ñëpp xam na ni rak yow yaa ngi ni yow rek ma nga ko jëmal presse bii rek fi taxaw jëmal na ko presse bii fi taxaw ñoo ëpp importance fukki yoon ak juróom bëri ñoo importance promoteur bi. man maa laaj mooy solution bi nii gars yi tëral waaye waaye CNG est ce que ñuy renvoyer combat yi waruñu woon mën a xalaat bëgg trouver solution mu bàyyi ba foo ma combat ñu doog a trouver ci affaire ordinaire CNG mënu ci dara CNG dañ leen fay teg rek. waaw d' accord parce que autorité ko dañ ko wax li ko wax lay mën a wax. noo mënu koo xalaat parce que CNG n' ne pas habilité di xalaat état dafa am yoon nga xam koy teg yow mii mënoo xalaat rek xaw ma ban organe nga nekk mais mënu xalaat def la neex dañ lay dicté li ngay def dañ lay joxe instruction